waaw xale bi ndox mi nga naan ba noppi moom nga sànni nit ñi fii xanaa xamuloo ne sachet bii nga sànni tey jii mën na laa jëriñ njëriñ loo xam ne doo xam fan ngay teeree jeeg moom parce que sachet bii nii tey jii moom moo gën a cher li nga xamante ne moom mooy or ndaxte dafa am kuréel gu mag goo xamante ne ñu ngi leen di woowee KS ñoom ñooy dajale yii nii di ko faral di jënd ci nit ñi boo ci amee lu tolloo kilo daañu la ko weccee kilo bu nekk 300 xamuloo woon lool de bés ni ki tey nanga nga ko xam te nga def ko sa gànnaay aywa mbuus mbuus voilà faral conscient de l'impact négatif des déchets plastiques sur l'environnement le s'est engagé à rejoindre la politique nationale et internationale pour mieux collecter et traiter les déchets plastiques. ank moom di ngeen ma ko def ndax ci jàmbur laa ne yow doxal rek yow ma ndànk rek yow doxal rek ci jël rek nga dugg aatu yow ku ma bett nga bett nga ma amul loo wax yow gi lu xew loolu danga koy laaj mu toog xam nga moom dafa toog moom xam na kër laaj ko ko kan moo ma indi foo leen ma fekk sama biir kër wax leen nag moom waaye lu ñu yëkkati a xam te yow coow gis nga kii dañ mu yëkkati ko lebal ko sa jëkkër ndax dafay ma sama kër ba fii wax leen ¡Gracias! ngeen dëkk bi yëpp bopp koñ bu nekk taxaw ngeen fa fen duul seen duul ah sama kër moo leen dese léegi. eh kan kat mooy ko sama jëkkër eh, sama jëkkër ci suñu mais eh, gaan seen seen ngalax bi ren neexoon na de. booy tamit. loolu dara yéen ko moom. parce que affaire bi ñu ñëpp benn lañ. benn lañ jullit chrétien affaire yëpp benn lañ. non sérieux yéen bu ngeen xewlee dañuy ñëw lekk mu neex. booy loolu amul problème mën a demee mais xam naa ren moom ah. Uh-huh. non pooju laa lay jox. korite yow wax nga lu bëgg non soo yàpp nga may wax de pooj pooj bi laa lay jox gis nga ngalax bi nan naa si une semaine dama ko dugaloon si frigo bi pooj bi nag deux semaines laa koy lekk dama koy chaque jour ma dagg tuuti dencaat si frigo bi noonu laa koy jàppee ba mu jeex yow <laughs> <laughs> moo bëgg a ndawal de <laughs> ah mais kii du Marie Pierre ah waaw oh, mais kii tuddul Marie Pierre kii óol la tudd óol waaye kii xamoo ko maa nga xam kii Marie Pierre la tudd amee ah, mari óol ñàng la tudd waaw mais óol ñu ma gis naka gi rek yaa ngi si koor yi maa ngi si koor gi naa la gis de maa ngi ah. mais mari ma jiwaale de sa <laughs> waay kii nu mu tuddoo kii mari père naa la mari xam na la du man sa waay du man du man daa ma jiwaale mais yow la sa waay xam naa la waay memang mari aw même lam bi wala takon keurog bi ma nuyu kenyang? jaaral verte bi ba ma la neex ñaan way du man dama juwale mari ber man dama on ñanga du man dama juwale dem len wax ci seen way seen fi ki ñu ko ko ñu ko ñu tey ma la ah néew ma la sa jëkkër dee. Eh. da ngaa yebaate de. xanaa leer na. yow kii sa jëkkër da kay doxaan mu yëkkati 250. loolu sama yoon nekk ci ngeen def bu fa nekkoon tey jii <laughs> kon leneen la ñuy wax. Eh, man maa ngi dem sama shopping. jeeg bu ragal ma ay gi tekkiwul ci kër gi suma xar la yow rek la da day jaay kàppaam jom la def kon na ma jiwaar de kon na ma jiwaar de du man na torop kon non non yalla xam day mom la de rek sa way ki mom la hmm galé la ma fekk ma toga sama sœur bi tak chain la wax ni ma wax mu ne ma orul mom la mari père mo dëgg ci bop koñ bi lay def bari waay bari ba xam ko xoolal day woor gaaleem de bu ah. génnee di day lekk day naan xoolal caayin boo lépp loo ko jox mun de léegi xam nuy def yow wan ma gaaleem non maa la koy yóbbu yow wan ma gaaleem ne ma fii mooy gaaleem wala kii mooy jawaram man ma tiñal waay non paa bi mooy saay saay noo xam nga moom man dama la koy yóbbu paa bi nii saay daal noonu lay def te xoolal daa ñëw si ñëw harcelé waaw doole or nangam nangam nanga ñoo ñu ay chrétien lañ dañuy teg caayin dañuy waajal añ nii sax mu ne ah ak dee moom ma repère la <laughs> man xaw ma woon nii la mel jikoom la moom la paa bi mooy sulaar dëgg dëgg mais xoolal xam naa fu mu koy jàpp garaaw yow boo xoolal soo paree rek daw nee ma gàlle mag man li des ah, ma ko ba bàyyi dina xam ndax Marie Pierre la tudd wala ol ñanga ol ñanga waaw Marie Pierre wala ol ñanga di ma xam ba lu si tudd yow koy des baa sama loxo rek doogu ji gàlle ma xoolal a ko foofu lépp ba waxee uneka hé daa ka dégg ndànk xam na ma Marie Pierre dégg ndànk rek baa waxee dina bàyyi mu sedd xamante nañ moom la non man paa bi mooy saay saay dëgg dëgg dëgg dëgg mais gànn xoolal amul benn ndogoo ngi jot quoi baay ma daw. Thioune bàyyi ma daal nga dem. ñoo far yow mais ma la wax ah. xel jaajëf jaajëf ay sama waay non man paa bi mooy say saay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg paa mooy saay saay paa ne ma Marie Pierre la tudd naan suñu caayin tux tabaa xam nga di créer ay mbaxal non paa bi sulaar la mais dara dinaa xam gàllem.